waaye du ñun ñëpp nag dafa am ay borom itam hmm? soo ñooñu dangaa gis ne di moo ñuy roy si ñun rek bu yàggee ñoom itam dañ dee ci loolu yëpp daf dee am soo li may advice xale yi rek ñooy ñu laan moo soo dat dee kan bi comme non si soo dat ñu mun ñoo dimbale ëllëg ak si dimbale suñ yaay yi suñu rakk yi ak suñ doom mm. jërëjë ok jërëjëf mbokk yi ñoo seetaan di leen dellu sargal ci programme yi baati jigéen ñi euh, fi mu nekk nii nag dinañ leen indil suñ ñaareeli faana bi euh, maanaam suñu wérgu yaram euh, te ki leen ko amaloon di Jim Jallow jógee ci Health Education Directorate asalaamaaleykum mbokki seetaankat yi tey bunti nguur du saytu wàllu wérgu yaram gi ñu ngi ànd ak GRTS ñëw fii Serekunda Health Center pour seet euh, ñu nga xam ne ñoo seetu wàllu ñàkk wi si biir Gambie pour waxtaan ak ñoom waxtaan ak jigéen yu nga xam ne ñoo sopp pour ñëw noos lan mooy njëriñ ñëw noos surtout ma péngu yu nga xam ne xale yi ñu ko am weer bu nekk. seen programme bi nag programme bu am solo la programme bu nga xam ne ñu ngi ko tuddee jotaayu jigéen ñu kon nag ngeen ànd ak man ak euh, waa wér gu yaram gi ñu dugg biir Serekunda pour seet. Ah, ñi nga xam ne ñoo nekk fii di liggéey liggéey bu am solo bu nga xam ne dafa saxal wér gu yaram fii si biir Gambia. am salaamaaleykum na nga def tur bi naka la. man maa ngi tudd Aminata Ba. public health officer fii si Serekunda. Ah, Aminata maa ngi fekk fii tey yéen a nekk di ah, péngu xale yi gis naa ne xale yaa ngi nekk di jooy lan la xale yi di am tey ak lan nga fi ne toogee fii si biir Serekunda. a ah, balaa ma mun a wax si loolu man dina start di gërëm yaay di leen santa ndaxte su taxutoon yaay tey ñun di mun a am xale yi fi ñu péngu leen ndaxte yaay ñu ngi góorgóorlu torop di def seen wareef si xale yi loolu tax na ba ñun ñu gën a mën a def suñu liggéey parce que xale yi war nañoo am péngu lu ko commencé buñ juddoo ba balaa ñoo am juróomi at pour ñu seet seen wàllu wér yaram ak péngu yu ñu war a jël te si loolu yaay ñu ngi góorgóorlu torop ñu leen a gën a ñaax. ñu gën a góorgóorlu di leen indi noos ndax ñu mun a am seen pengu yi ba cay teel ba fii ba juróomi at ak seen peese yi si kaw loolu tam maa ngi wax waajur yu góor yi ñoom tam seen responsabilité la pour ñu war a dimbale jigéen ñi ñu mun a ñëw xale yi mën a jël seen ñàkk yi si waxtu ak balaa mooy léet. ah amee na pour ma laaj la rek lan mooy njëriñ yi péngu yu nga xam ne yeneen ko péngu xale yi weer bu nekk lan mooy njëriñ bi ah péngu yi ñoo joxe nag bëri na bu nekk am na ay njëriñam waaye naa si wax tuuti comme ni lu mel ni si BCG bu ñoo joxe su xale bi juddoo bu ñoo a suun at baat bu xale bi juddoo rek bu ñu ko war a jox boobu noonu mooy BCG bi boobu noonu soo ko jëlee daf lay aar si feebari saxar bu ñoo wax mooy TB bu ñoo wax te beneen tam mu fa xale bi su demee bi nga xamante ne jël na péngu ñaari péngu am na bu nga xam ne dañ koo jël ñaari am na bu xam ne koo jël ñetti weer am na bu nga xam ne dañ koo jël ñeneenti weer am na tamit bu nga xamante ne nii dañ koo jël juróom ñeneenti weer boobu la ñoo wax misul silo fiba te réeroo mbir ne ñun waag gi wér gu yaram dañoo def ay campagne di joxe euh, garab comme ni poliomyélitis bu ñoo joxee feebar yi lafañ bi te waxtu bu nekk ñun suñu wérgu yaram suñu bunta dañ koy joxe te dañoo dugg si kër yi di dimbale waajur yi di jox xale yi ndax ñu aar leen si feebar yu mel noonu te su ñëwee comme ni si measles yellow fever bi tam boobu tam xale yi dañ ko dee mun a am te dañ ko dee mun a toppabe dimbale leen moo tax ñu leen de jox péngu yi pour ñu aar leen ñun suñu wàllu liggéey bi nekkul ne dañoo toog pour péngu xale bi pour faj ko ñun suñu liggéey public health officer yi ñun pour joxe péngu ya pour aar balaa mooy am ñu mun laa fàggandiku. waaw kon su ma la déggee bu baax Aminata nga ne péngu yu ngeen am mooy ne péngu nga xam ne dafa aar xale bi pour bu mu am saxaar bu bon bi am na péngu bu nga xam ne dafa aar xale bi pour bu am feebar yi sedda amati nga péngu bu nga xam ne dafa aar xale bi pour bu mu am ngas. am nga péngu bu nga xam ne dafa aar xale bi tamit pour bu am euh, njàmbataan mooy sa saqat bi ah am na péngu yu nga xam ne dafa dafa aar xale bi mu am tétanos amati nga péngu yu nga xam ne dafa mun a aar xale bi pour mu am yellow fever ñenn ñi ko wax pays am na yeneen péngu yu nga xam ne tamit mun na aar xale bi bu nga xam ne comme pneumonie ak yooyu noonu pour mu aar xale bi parce que loolu am na solo trop waaye Aminata su fekkee ne like euh, péngu yi yaa ngi xale yi. ah xam naa daf day métti trop te xam naa yenn yaay itam di leen caali trop lan nga am pour wax ci waaw loolu dëgg la suñ dee péngu xale yi xam nga ñun tam du suñu bànneex yuy nekk di jam xale yi waxtu bu nekk waaye pour ñu aar leen ñu dimbale leen waajur yi nag léegoo léegi soo si dee péngu duñ dee kontaan waaye pour dimbale leen moo tax jafe yu ñu si mun a am léegoo léegi su loo maa ngi nii bandage suma loxo bi démba dama doon péngu du xale bi bës dóor suma loxo bi péngu bi jàmm xam nga ñun moom ba tey ba tey terewuñ ñu am problème ak ñoom waaye ba tey lu ñu leen mooy péngu yi dañ koo jox xale yi pour ñu dimbale leen waaye nekku ne dañ leen a jox péngu yi pour ñu sonal leen wala lu te coono bi tam bu fekkente ne jël nañ péngu yi mm. léegoo léegi da nga dee gis xale bi nga jokk péngu bi xale bi di jooy yaram bi di tànga su fekkente ne loolu am na mm. ba am waajur bi bu jigéen bi wala waajur bu góor bi ñoom ñëpp lu ñu leen a wax mooy péngu bi mun na leen a su fekkee boromam am na si yaram bu tànga mun nga ko jox lu ñoo wax paracetamol ndax yaram bu tànga bi mun a wàññeeku mooy fiiba bi waaye su fekkee ne tam péngu bu ñoo wax dipiti busta boobu mooy boo ñoo jël benn at ak juróom benn weer léegoo léegi yaay itam dañuy doy mun a ñëw toppa si ba fii ne diw yaa péngu suma doom bi tànkaam bi dafa ne wala leneen teeleeg waxtaan ak ñoom ñoom ñu mun a xam parce que péngu boobu soo ko jëlee dafa diis léegoo léegi su ko xale bi jëlee fii ba juróomi fan mun naa am du dox wala dina ko géteen si doxam waaye loolu noon bu fekkente ne loolu am na ñun suñ jàng ak lu ñëw may gaay lu ñuy ñaax gaay mooy bu fekkente ne loolu am na boromam mun naa jël ndox galaas lu ñu wax cold compress mu tek fa mu bës ko fa diko massage ndanka ndanka waye boromam bu mu jël lu tanga wala leneen diko fa def parce que jigeen ñomi ñoom it neen dañoo ay xel naan defal li defal la. waye ñun suñu bunti wérugu yaram lu ñu suñu jangame bu fekkente ne lolu amna na bi amna metti metti ci tanka bi da ngay def lu ñu wax cold compress moy nga jël ndox glace bi nga def sa sagar nga tek ko nga bës ko ndanka fi bala ñu wax juromi fan bi fi be juromi fan rek lolu dafa genn xale bi am boppam jërëjëf Aminata xamna lolu am solo la parce que péngu euh, ñetti weer bi tam dafa nekk péngu bu nga xam ne lu am doole la parce que dafa am péngu yu bëri leen boole def ko benn boobu tam yaakaar naa jigéen yi am suñ péngoo xale yi xale yi su ñëwee demee kër ah, guddi yëpp dañ dee nekk di jooy seen yaram di tàng kon am na solo trop comme li leen digal mooy ne suñ amee mool jox leen su fekkee tam seen tànk yaa nga xala néewi ñu jël lu sedda bës ko ndax mu daal di dàmpa ko ndax mu daal di wàññeeku bu baax a baax kon Aminata jërëgéen jëf xam naa ne nit ñi bëri neen Ah, waaye nag euh, taay bu nekk du ngeen de taay yeneen si rek di dimbalee jigéen ñi di xale yi parce que xale yi ñu jar a dimbale leen parce que ëllëg ñoo war a nekk mag yi ëllëg yi ah su Aminata si kanam tuuti dinaa ñëw delluwaat si yow mun ngaa continuer liggéey ma doxantu tuutu ma laaj ñee na jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ñëw fii indi seen xale yi si Serekunda Health Center pour péngu ñàkk yu nga xam ne ñu dimbale xale yi pour ñu màgg màgg bu war a màgg pour dimbaleen tamul fànqal seen xale yi pour bu ñu am feebar yu demee ni ki ah, feebar yi TB feebar yu ko demee ni ki feebar yi njàmbataan feebar yu demee ni feebar yi pneumonia feebar yu ko demee ni feebar yi ah, ŋas feebar yi nga xam ne ñu ngi ko demee demee ni feebar yi tétanos ak feebar yu nga xam ne dafa demee ni comme feebar yi ah, pays kon nag ndaw si na def na nga tudda Aram Kebe Aram Kebe da nga ñëwoon tey fii lopitaan waaw tey nag ah, gis ngeen ne GRTS ñoo ànd ak ah, waa wér gu yaram gi pour ñëw seet si leen fii pour waxtaan ak yéen pour ngeen digal seen moromi jigéen yi nga xam ne ñu nga toog ci kër gi du nangoo ñëw noos parce que ñëw noos dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la yow sa gàtta gàttal péngu ñu ne péngu xale yi ban njëriñ la am si xale yi. am na njëriñ ndax xale xamul dara. Mm-hmm. bu feebaree di jooy kenn du xam lan moo koy métti jigéen ñi dañ war a indi seen doom yi pour ñu jël seen péngu. Mm-hmm. respecté seen devoir daal jigéen dafa war a def devoir indi xalem pour mu jël ay matu jël matuwaay gune yi daal ndax xale xamul dara ndax du yóbbu doo xam lan moo ko jot te jigéen ñu bay dañu toog si kër bi bañ indi seen doomi l'hôpital loolu wóorul ndax buñ feebaree ëllëg dara mën na leen seet dal te kenn du si xam dara ah mbaa yow tey tey tey xale bi lan la war a am tey ban péngu tey war a péngu ñaata ñaata la war am benn benn péngu la war a waaw péngu lan la ko fànq feebar yi lan. feebar lépp daal. eh feebar yi comme feebar yi sedd daal. waaw waaw ah, ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ma ñu wax def. Ah, tur bi naka la. Kadi. Kadi Kadi da nga ñëwoon Serekunda lopitaan fii pour indi sa xale bi ñàkku ci ñëw noos ñu xamee ko fi ñëw noos. lan mooy njëriñu ñëw noos. noos dafa baax si doomu aadama. Ah, dafay tankal ya, di do xale wér bu yaram dafa leen tànk pour bu ñu am xale yi wér wér waaw lan ngaa ñaax sa yéen yeneen jigéen nga xam ne bu nekk duñ ne nangu ñëw noos xanaa ñaan leen rek pour ñi ñëw saa su nekk parce que xale yi xale yi bu a baax kon jë jërëjëf am kon ma xale bu bu nga ko ba nga ko péngu lan lan la xale bi am. xale bi mu ngi am pengo bu ñëw penta ak nimo boobu mu ngi leen a aar si feebar yi sedda bi ak poliomyélitis pour affaire yi lafañ bi loolu laa ko péngu ni parce que xale bi mu ngi am léegi ñetti weer te xale bi su fekkee am na ñaari weer dafa war a jël péngu bu amee ñetti weer dafa war a jël péngu bu amee ñeenti weer dafa war a jël péngu parce que xale bu jubi juddoo